dañu ñëw fii tey ci Ndar ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mu sant ñu ñu ñëw massawu ñi euh, ñàkk seen ay doom Sénégal yëpp ñàkk moom ci boppam mu ñàkk njaboot goo xamante ni dañu nekkoon ci benn gaal bu def benn accident ba am ñu ci faatu di massawu tamit ñi nga xamante ni ñoo ci am ay gaañu gaañu dem nañ leen seeti léegi ci hôpitalu Ndar bi waaye dem leen seeti ci infirmerie aussi ñi nekk infirmerie wu base navale nord may profité si occasion bi di sant di gërëm bu baax euh, force de défense et de sécurité muy marine muy police muy gendarmerie ci coordination gouverneur wu région wu Saint-Louis ñu leen di wax ni liggéey bi ñuy def ngir askan wi ci fànn bu mu mënti doon gis nañ ko bu baax te ñu ngi koy rafetlu loolu la son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waxoon ñu ñëw euh, teewe fii ngir jottali ko euh, dañuy faral di xalaat ñenn ñi di wax ni euh, ñii dañu ñàkk xëy walla ñii dañu am ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom loolu mooy waral ñuy dem ci géej gi waaye may fàttali nii loolu dafa am ñu seen xam-xam màcc jëm ci loolu dem ci beneen réew bu dul sa réew yàgg na ci àdduna bi àdduna sosoo ba tey liy firnde li mooy ñun ñëpp ci menn maam lañ ko waaye tey tasaaroo nañ ci àdduna bi ba réew moo dem wala continent boo dem wala dëkk boo dem ay nit ñu ngi fa dëkkee.